sama teewaay lenn la rek mooy lu ma nekk si mag si xam mooy Cheikh Wade ci police parcelle buumoon ca parcel Assainies depuis lors nag gis ñu benn effet bu justice bi def gis ñu benn avancement bu justice bi def loolu moo tax ba ñu déggee rassemblement bi ñu sawar si pour ñëw xam nga confirmer ne justice bi tamit xam day dox xaw ma muy ah, muy muy xaw a si benn côté ñu ngi ñu loolu ñun suñu côté parce que mënuñu gis meurtre boo xam ne def na 9 mois ñu def suñu plainte def ko si table procureur ba tey réaction wuñu defuñu benn réaction si affaire bi comme si ko benn mala lañ yor wala wala leneen lañ yor te or benn euh, citoyen lañu rey doomu aadama lañu rey benn sénégalais tamit la ñu rey koo xam tey mérito nañu jox ko justice te koo xam mooy commandant bi nga xam ne moo rey booy bi mérito nañu tëj ko si kaso bi parce que loolu du rôlam rôlam mooy mu sécuriser ñu mu yor suñu kaaraange yor suñu kaaraange waaw ñun ñoo xam ñun ñoo koy fay suñuy impôt kon kooku waru jël ay ay waru jël arme di ko viser suñu di ko tirer koy bàyyi comme ça muy sedd c'est pas normal moom fi indi tey waaw pour taxawu Sénégal parce que amuñu dara lu dul Sénégal waaw ñun moom xam rek dañoo sonn bëgg jeunes yi liggéey parce que li ñuy def nii jeunes yi dañ ciy liggéey man mii si wax ak yow man électricien laa dama yor sama équipe keneen ak am na euh, ouvrier yoo xam ne ñu bëri dañ ciy liggéey buñ ko génnee fii indi fi ñeneen loolu du dox loolu dañ ko war a xeex parce que ñun suñu senegal ñun moom moo ñu ñor waaw lépp luñ bëgg daal pour Sénégal jëm kanam rek daal moom moo ñu ñor. ñu ah bëgg versé bureau HLM lu mat presque ñaar fukki at ñuy versé foofu terrain léegi nag ba ñëwee bureau HLM ñu ni ku am un million cinq cent dinañ la jox terrain léegi ñu ñuy taqalee lu ñu am dugal lu ñu am dugal ba yàlla dogal mu mat un million cinq cent ba mu matee un million cinq cent ñu ñëw di leen laaj suñu terrain mu ñu ñu ko jox soo demee banque de l'habitat bële ñu naan la duñ la wax lu leer léegi télé bu nekk dem nañ fa muñ ñu wax benn réponse te lu mel ni lu toll ni état état nga xamante ni yow soo soxlaa terrain lu toll ni bureau HLM boo fa demee ñoom ñoo la war a jox terrain parce que moo gën ngay jël sa alal ko dugal fenn ba yàlla dugalee ñu dugal foofu suñu xaalis di fa verser suñu terrain ba mu mat mu ñu fexe ba jox suñu terrain lu mat ñaar fukki at xam nga loolu metti na léegi nag ñu bëggoon nag ñoom ñu jox ñu suñu alal suñu terrain nu mu gënee gaaw parce que lii dafa metti parce que ñu ay père de famille